xel mën na ko dafa ne dafa ne loolu il est illégalement à la tête du parti. xaaral ma wax la loolu ah. moo tax yéen ko leeral ah. euh, euh, pour euh, falaat président Macky Sall. ça veut dire que kon encore dañuy toogaat 5 ans pour mu nan lay demee c'est-à-dire loolu noonu dañ ko war a leeral. non non dafa leer dafa leer suñu texte yi dafa leer nañ. déggoo li ma suñu texte yi dafa leer nañ. bu fekkoon ne mandat bi ñaata bu fekkoon ne. ñun dañu nekk dans l'illégalité 2018 dañuy ñëw rek ne investir nañ ko. mais dañoo def congrès de fois. c'est c'est illimité parce que non amul mi ngi noonu. loolu bu ko apprécier non dégg loolu. non loolu bu ko apprécier yow parce que vraiment yow dangaa laaj nañ la wax suñu parti ni muy doxee waaye amoo pour joxe ci sa xalaat li nga am kay. mooy est-ce que ah, non non non du dictature non non attends attends un membre non non doxalee mooy est-ce que ñun suñu statut. légal na euh, euh, liñ ci def topp nañ ko waawoon a déet waa léegi comme dëppoo naag statut lu ci waay mën a wax man kay mënoon naa nangu même boo bokkul suñu parti bu ñu ñëwee nga ne yéen kat da ngeen a transgressé seen règle yi li ngeen def tegu leen ko ci yoon entendre leen Moustapha Diakhaté alors que seen statut yi tey jii par exemple bu suñu statut waxoon il faut entendre ma ñëw Pape Djibril ne ma ah yéen kat li ngeen def du yoon. Mm. dinaa ne ko ah wax nga dëgg dinañ ko xoolaat waaye nag ñun dëgg. loolu mooy am comme comme toutes les règles doivent être écrites bon c'est vrai que. en démocratie aussi day am loo xamante ni kenn du ko déglu mais bon sens kenn du ko bind. mais bon sens lay nekk mais man li ma bëggoon laaj toujours mooy. Uh-huh. Euh, lan la wax parce que jamono yooyu la gisoon nañ kii di Moustapha Cissé Lo aussi amee woon benn virulence. Uh-huh. ba nga xamante ni euh, jàppoon nañ ne bu dul woon dalal bi ñu leen dalal noonu. xëy na uh-huh. mënoon na euh, xëy na dalal boobu sax avertissement la wala soit. science d'explication. lan moo tax Moustapha Diakhaté jaarale wuñ ko foofu. waaw mais xam nga Pape Djibril. commission discipline. mën naa réunir. waxtaan ak ay nit. c'est pas la Moustapha Diakhaté du première personne bu ñu yóbbu commission discipline est-ce que xam man mi di wax ak yow. man ak le docteur Augustin Tine mm-hmm. ak Thierno Alassane Sall mm-hmm. mais mos nañ dem commission discipline mm-hmm. parce que dafa amoon ay problème à Thiès ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen même tey jii suñu réunion bi boobu kan moo leen convoqué woon yow yow bi nga xam da nga ci bokk non man bu ñu bu ñu commission discipline yow bokk ci doo bokk ci réunion boobu mooy man booba Mbaye Ndiaye la woon kan moo la déglu woon boobu Mbaye Ndiaye ñoo ñooy ñoo nekk mos a nekk membre commission de discipline Mbaye Ndiaye. Mm-hmm. Benoît Samb ak ki nga xamante ni. Mm-hmm. moom mooy Badji. te bañ la déglu donc mais bien sûr. mais lan moo tax kii tamit indiwu leen ko déglu ko. déggoo li ma la wax dama est-ce que déglu nañ ko ou loolu du fii laa koy waxee parce que loolu c'est interne. maintenant non da nga wax ne déglu leen ne. waaw dama loolu. waaw ñu ko dee def. Mm-hmm. ne dañuy déglu nit ak commission discipline. Mhm. loolu dafa doon loo xamante ni secrétariat bi. Mhm. moom mooy jël décision mais dans le parti. Mhm. sanction yi bu ñu ko dee jël. dañuy xool li nga xam ne mooy texte parti bi. mais commission discipline dañu waxoon nañu entendre ñàngam pour réconciliation parce que loolu dafa am ci suñu texte. mais il n'est pas écrit. ma non c'est écrit. ko bind pour réconciliation bi. fuñ ko non non boo xoolee. bu ñu paree léegi naa bu ñu paree léegi ma génne la ko parce que y a une commission de réconciliation dans le règlement intérieur de la paix l'Alliance pour la République. parce que man du waxantu. Mhm. beneen bi mooy sanctions yi. dañuy constater ñu jël ay sanctions te comme ni ma la waxee président APR moom mooy prononcer sanctions. mais su su fekkee jox na prérogative benn nit dans le secrétaire exécutif national te tey. moom mooy prononcer sanction bi. non kon kon leen ni wax ne leen. dàq leen ko moom moo leen wax ne leen dàq leen. non non non non na dans le règlement intérieur président commission discipline. dans le règlement intérieur. non dañu ne mooy prononcer sanction bi. quand je dis prononcer xam nga mooy lan. maanaam moo koy signer loolu tubaab la le le président prononce la sanction maanaam commission discipline mooy réunir mais bu ñu paree la décision. président parti bi moo koy signé waaye bu joxee sañ-sañ mm. keneen comme ni ñu def fii ñu ne pour le président du parti xam nga loolu président du parti Macky Sall le président de la commission de discipline mm. muy Abdoulaye Badji mm-hmm. donc man li ma lay wax moom mm-hmm. wax dëgg yàlla mm-hmm. kenn mënu koo dindi parce que ay sart yu leer la li muy wax ci APR ci doxalin bi ak euh, na mu tëddee amul dara loo xamante ne nii dëgg am na si Moustapha Diakhaté c'est-à-dire ci doxalin bi. non euh, xam nga aussi loolu c'est autre chose fi mu toll nii xam nga lu tax dootuma wax. wax non parce que boo dàqee nit ki xëy na am na dëppoowul ci kàddu yi ñoom seen ci wax. dëgg la la mu wax am na lu nekk dëgg wala déet. ci doxalin xaaral ma la xam nga fi mu toll nii Moustapha Diakhaté comme bokkatul suñu parti. ay waxam wax dëgg yàlla dootuñu ci wax. est-ce que la décision est attaquable est-ce que moom am na foo xamante ni mën na fa attaquer seen décision waaw déggoo ma la wax fu ko neexee. Mhm. mu bind demander ñu gracier ko wala ñu revoir. la décision ma xool loolu kay moom mooy leer loolu kay wax naa ko sànq ci biir kii loolu ci texte yi la nekk. Mhm. parce que nag aussi xam nga aussi dàq nit rek daan dàq naa la dootoo loolu tamit aussi dafay nuru leneen. Mhm. mais dàq nañ la bu fekkee nag amandé wu nga xam ne li nga def. du euh, jàpp nga ne ah war nañ ko mën a xoolaat. Mhm. am nga sañ-sañu bind. loolu mooy li nga xamante ne moo am boobu man beneen question bi ma am pour la. mooy xam nga quand on crée un parti politique. c'est pour régler les problèmes des léegi président Macky Sall en mille bi ñuy créé 2008 bi muy créé APR dañu waxoon ne c'est la patrie. avant le parti avant le parti. absolument tey jii nan ngay jàngate le fait que coowal parti occupé nii débat bi nan nga koy gisee yow. waa ni ma koy gisee rek mooy ni ma koy gisee rek mooy. xam nga président de la république ma nga Londres. ci sommet boo xam ne waxu investissement lañ ciy wax. xam nga kooku nekkul fii di lijjanti ay waxu politique politicienne parce que moom mi ngi liggéeyal réew mi. mais yëg na moo ah, joxe ah, ah. moo joxe moo joxe kii. diggal ci mbir mi ah waaw mbir mi dangeen a laaj da ngeen di da ngeen déglu ma tontu <laughs> xam nga da ngaa wax ne occupé kii bi parce que affaire bi fi mu ne nii mm-hmm. Mm-hmm. su ngeen ñu woowuloon ci télé bi duñ ci wax. yow soo génn yow soo génn yow mais yow tamit dañ la teel a dégg ci rajo yi nga ne bu arrêté wul dinañ ko dàq. non non déggoo ma man dama wax lu leer dama ne. da nit ñi dañu xam ne les faits sont sacrés le commentaire il est libre. oui man waxuma dinañ ko dàq dama ne. Mhm. su fekkee dafa créer mouvement. Mhm. peut-être mouvement bi en de dehors de l'APR lay nekk parce que ñun amul mouvement bu nekk dans notre parti. loolu c'est très clair est-ce que ñoom Cheikh Kanté ñoom Cheikh Kanté ñoom Mamour ay mouvement. nga ne non xam nga mouvement. waaw bu la neexee. waaw yow tey jii. waaw Pape bu la neexee nga ne je crée un mouvement. pour. soutenir l'action du président. ñoom Mamour Diallo ñoom ñëpp am nañ ko. waaye biir mos ngaa dégg. mais moom aussi nee na il soutient l'action du parti. non non non attends est-ce que dégg nga. Uh-huh. un mouvement qui est membre de l'APR amul y en a c'est des mouvements de soutien à l'action du président mais mouvement dans le parti amul. mais moom nee na mouvement de soutien la. Ah, mais je te dis non il n'a pas dit suqali dégg nga ko. wax dëgg yàlla man sax waaw man man comme ni ma la ko waxee léegi. xam nga ñun. lu mu wax mu ne ay ay ay ay kilifa lañ ay responsable la. comme Moustapha bokkatul suñu parti wax dëgg yàlla li muy wax comme da koy wax. ngeen ko génne yow nee nga am na droit def appel. kay mais fi toll lii ba ba muy def appel. honorable ndax lii gaawantu woo leen si bind ko. waaw déggu li ma la wax ma ne ba bi muy def. appel est-ce que jël nañ ne am na faute. mais en ne non ba bi may wax leneen ba bi may wax leneen bokkatul suñu nag buñ ko intégré. waaw mu ne ndax amul gaawtu ndax foti ñu gis nii ci kii bi. non amul gaawtu amul gaawtu on a bien réfléchi avant d'écrire cela. commission de discipline ñaata temps la am droit en fait temps pour mën a saytu kaawu kenn balaa muy prononcer une décision. loolu amul fenn ci. amul ci seen texte yi. mën nga ko gis tey régler ko tey. non ma ne amul ci texte yi li nga ma laaj. très bien alors wax nga sànq président euh, ma ngi ca Londres amul jot ci yenn détails yi pour di ko lijjanti euh, am na lu am solo loo xam ne tamit xew na euh, foofu noonu. Mhm. maanaam mu ngi prononcer discours ci jàkkaarloog ay militants am ñu gis fa benn daam Mbayang Camara daal di yëkki ay kàddu foofu noonu di ñaan ñu libéré Guy Marius Sagna